الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن ما شاء الله dañoo ñëw ziyaare Baye Niass je suis de Dakar Medina Gounass famille Thierno Amati Ba et la famille de Thierno Mansour Baro Mbour mais man taalibe la tariqa tijaani bi ñoom ñëpp benn lañ muy Mbour muy Madina Gounass muy médina Baye muy euh, Tiwaawan muy Touba ñëpp benn la léegi nag euh, man taalibe Maulana Cheikh Ibrahima Niass la taalibe Cheikhul Khayri le 20 avril Boubacar mooy chérif Cheikhul Khayri bay Niass mooy xalifa ci tijaani yanke yi man mun naa ko garanti parce que bi ma yur na ba xam Baye ci laa xam kan mooy Baye Niass sama première fois xam Baye Niass damaa demoon Fass Maroc Zawiya Cheikh Tidiane Chérif ma dajeek euh, Yanene Thiam ñu nuyante ñu nekk xarit foofu mu ne ma Chérifa boobu maa ngi hôtel Tombouctou nekk denk naa ci hôtel bi 4 mois jóge foofu après dem Istanbul avant may dem Istanbul mu ne ma Chérifa Zahra ma ne ko waaw ma dama bëgg nga bi ziyaare Baye Niass ma ne ko damay dégg Baye Niass Baye Niass mais xaw ma kuy Baye Niass ma ñibbisi bi ma ñibbisee dakaar benn jour may dem benn ziyaari taalibeem bu tudd euh, Baye Diouf Géejuwaay sama benn nijaay bu tudd Samba Kande di ma yóbbu ci laa ñëwee ba ci angle bi fi ma war a jàddee egg ci godron bi ma dajeeg Maolana Cheikh Ibrahima Niass mu ngi sol jàllaabe bu weex def kaala def lunette bu weex yore cartable enseigne yi kiwir yi ci laa ko ziyaare ñëw yëkkati 250 jox ko ma ne ko lii moo fi nekk parce que retiré wu ma wéef te li ma yor fi taxi laay jël après ma ne ko sëñ bi mu ne ma naam maa ngi tiit nag parce que mbaggam bi na mu yaatooye ni maa ngi mel ne ku jàkkaaroo gaynde sama yaram yëpp taxaw ma ne ko yow am na sëriñ boo may ndróowal bu nekk ci photo yi mais nag euh, tur bi laa fàtte mu ne man la ci laa waxeek baay nag mu expliqué ma lu bëri waaye bi ma gisee baay nekkul 15 jours ci laa ñëwee dina Baye waaye bi ma duggee dina Baye ñëw sama yaay moo xamanteeg euh, papa Cheikh papa Cheikh xalifa bi gaañoon bi moom lañ ma ndayeele fekk Fatmata papa Cheikh waaye bi ma diggee Madina premier jour bi ma duggee ci rawda bi li ma sentir ak li ma yëg dama jooy bay bëgg a dee ci la sukkee ci suuf ziyaare baay di foo rawda bi ci saasi ma gis baay toog sama wet gis Cheikh Tidiane serif toog ci gannaaw mu ma du man maa lay ñaanal sa maam Cheikh Tidiane Chérif moo lay njëkk a ñaanal après ma ñaanal la ci laa yuuxooy nag ma génn ma daw bi ma paree leen ma génn ma daw may jooy topp ci biir fii di wirde di di di wirde di tourné di wirde di tourné di wirde di tourné ba benn moment ma fatt rek toog ci suuf waaye li ma gis lépp mënu ma expliquer yëpp parce que xam naa intervention bi du ma mën a wax lépp du lépp la ñuy wax. ah maam Baye ñas lu ñu war wax lu ñu jotee wax kay man li ma ko wax rek Baye yow yaay xalifa ci tijaniyeen kay ci la fëggee dënnam bi mu ne ma Chérifa ma ne ko waaw mu ne ma fii mooy sa place fii mooy sa place amoon nag. daanaa tukki amoon ay jafe-jafe yu bëri waaye bi ma ñëwee ci Baay fii la sama problème yëpp changé laa nekkaat nit dama doon jaar yàlla di ziyaare di di wirde di dem Fass Maroc chaque fois mais bi ma gisee Baay ci laa xam man maa tudd kan ci laa tarbiyee fan laa tarbiyee ci Cheikhul Xayri Boubacar waaye gannaaw bi ma tarbiyee damay toog nii di wax ak Maulana Cheikh Ibrahima chaque guddi dama koy gént. bi ma demee Mali maa ngi nekk Mali nekk foofu ak sama jëkkër Baye Niass damaa feeñu Seyda Zahra kii Seyda Mariam Niass war a gaañu cinq jours mu ne ma Chérifa Zahra kaay dem Koosi ñu ñëw ñu taxaw ci gannaaw teen bi mu ngi nekk population mu ne yéen mere naa leen boo leen xamoon barke bu nekk Kossy boo leen ñëwee ziyaare ci rawda bi da ngeen di dem ziyaare Kossy bu fekkee tooñ ñaa baay yàlla bu ma seedeeg baay ba illaaxira jour bu ma gaañoo yàlla bu ma gis baay yàlla bu ma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane yàlla bu sama sëriñ bi Cheikhul Xayri mu ne boo leen xamoon barke bu nekk Kossy boo leen ziyaare ci rawda bi fii da ngeen di ziyaare Kossy ngeen ziyaare Taïba après ngeen ñibbi ngeen dem mu ngi mer mu ngi sol dal bu bula ñëpp nag dem mu yëkkati xaalis di jox ni di dëkk yaay biyee ci laa jëlee ànd ak moom bàyyi moo ma woon Kossy ni ñu doxee ba dem Kossy ba jàdd wallahi billahi barki laa ilaha illallah noonu laa gisee Kossy boobu maa ngi nekk Mauritanie et kii maa ngi nekk euh, Mali ma wo yaa Seyda Fatmatou Papa Cheikh ma ne ko gént naa bàyyi mu ma yóbbu Kossy ma ne fan mooy Kossy mu ne Kossy la bàyyi feeña ma ne Kossy la bàyyi feeña ma ne ko jour bu ma ñëwee dinaa fexe ba dem Kossy cinq jours la am Seyda Mariam ñas gaañu après Seyda mu ne ma gis nga li nga géntoon baay xam naa Seyda Mariam Niass la ñëwoon jël si parce que Seyda foofu la nekkoon. tey ñu gën a xam baay dëgg-dëgg waa Nigéria ñu gën a xam baay dëgg-dëgg waa Britannique ñu gën a bàyyi xam dëgg-dëgg waa Amérique Chine Indo ñoom ñëpp tey xam nañu baay gis nga Indo ba dem ba tagg baay te xamul woon baay ñen ñoo nag gën a jekku ci baay gën a jege ci baay ñu gën a xam baay dëgg dëgg dëgg mooy waa Mauritanie yi doo gis benn naar njëkk ba bu nekk taalibi nit ko ñuul ku dul Maulana Cheikh Ibrahima senegal Sénégal may na leen lu tedd Baay ñas mooy xalifa yi ci tijaani yanki bàyyi leen ci xel ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass ak doomu baay ak sëtu baay. maa ngi nuyu tamit sama tedd bi tamit euh, Imam Cheikh Cheikh Maye Cissé. maa ngi nuyu ñaseen yi doomu baay yëpp mënu ma leen compter maa ngi nuyu sama sëriñ ak seexul xayri maa ngi ciy nuyu tamit Thierno Amane Ndiaye mais li may wax mbokk julli di jug leen ngeen jekku yàlla may na leen ku tedd xalifa bi nga xamante mooy xalifa Tijaan yeenk te porte bu mujj bi tey si si yëpp tëj nañ ko ci asamaan bi septième porte bi mooy buntu baay bi ku bëgg nekk tey egg ci yàlla na dugg ci tariqa tijaane bi mu nekk taalibe Maulana Cheikh ibrahim Niass man am loolu laa am lu ma tàggatoo man Chérifa Zahra te kontaan naa ci yéen itam seen liggéey rafet na yal na yàlla guddal seen fan yal nañu yàlla def ñëpp taalibe Maulana Cheikh Ibrahima Niass mbokk jullit di senegal yal na yàlla seen wërsëg yi def leen diine ci tariqa tijaane ñiy topp seen diine tam yàlla tamit yal leen yàlla def tamit nitu yàlla yal nañu yàlla defal jàmm ci Sénégal defal adduna bi yëpp jàmm defal réew réew bi yëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh